chers amis de rester fidèles connectés sur le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV tey nag weetuñu ñu ngi ànd ak people 221 ak Seneweb gàmmu 2024 fii ci Tivaouane fii nga xam ne aussi mooy kër Aziz Aly Ndiaye ñu toog ak koo xam ni dootuñu ko présenté ci réew mi mais aussi dootuñu wax digganteem ak ki nga xam ne mooy Aziz Ndiaye muy suñu soppee di suñu référence di suñu xaritu bopp Oustaz Modou Fall moom la amaat mbégte gàmmu 2024 ñu am ak moom jotaay yaa oustaz xanaa rek dañuy commencé di la wax déwénati di la ziar di la magal bu baax a baax ci bisu yonent bi nga xamee ni yàlla xéewale nañu tey ba ñu dund ko ensemble fii ci kër Aziz Ndiaye. jërëjëf euh, Thiongane maa ngi lay nuyu. maa ngi nuyu site internet yi nga àndal yëpp. di leen ndokkal ci sa yidu Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne moom la ñuy célébrer tey fii ci Tivaouane. waaye àddina bi yëpp di ko célébrer. ñuy ñaan sunu borom lépp lu ñu ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam alors wax naa ko ñu am occasion daje fii ci kër Aziz Ndiaye c'est vrai que dootuñu présenté sa diggante ak moom boo ma doon wax un petit peu mooy yi muy déployé ngir guddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow ça c'est pas donné à tout le monde ah comme ni ñu koy waxee. jërëjëf Thiongaan xam nga li ma wax bërki démb rek moom benn évétement la am muy gàmm te li mu lépp. cofeelam ci Seydil Hadji Malick ak Serigne kër seek njabootam moo tax mu di ko def ndax bu fekkee da am koo yaakaar wóolu ko amul lu dul benn guddi mu woote guddeem googu ngay taalibe sa doole waru koo fekkee te ñun nag congaan Seydil Hadji malik mooy sunu sëriñ waaye wax naa démb ma ni bu doon gàmm pour këram mën nga ni ñeenti nag doy na ko wala ñaar waaye ku génnee ay centaine de million jënd ay nag daj ay coono keroog bi muy dem Daaru Jolof quatre heures du matin la ñu yeewu dem ba Daaru Jolof ndaw ko ay heure yendu fa yendu ci poussière bi ak coono yi chargé nag yi ñëw jox ko jullitu yàlla yi nga xam ni bëgg na noo gàmm mais seen loxo jotul seen gannaaw mm-hmm. ak ñi nga xam ne njabootu Seydil Hadji Malick lañ mm-hmm. mu war leen a teral ndax Seydil Hadji maalik mii seen maam teraanga jooju yëpp mu di ko def lenn rek a jaadu ci moom jaadu ci sénégalais yi mooy ñaanal ko yàlla lu mu man ren bu déwénee yàlla na man lu ko ëpp allah tey macha yàlla may ko tey bu ñu nee gàmmu bu ñu tuddee kilifa diine yi tudd ñi nga xamee ne wax dëgg yàlla seen taxawaay am na solo ci Tiwaawan yëpp euh, dinañ ko tudd moom Aziz Ndiaye sa xarit lan nga jàpp ni moo ko may loolu yaaw saas mais yitte ju kawe rek xam nga saxaaba yi ku dafa lu la yonent bi doon doyee yow xam nga ni Seyduna Muhammad bu daan soxla xam-xam Seydina Alin lay woo xam nga ni yonent bi bu daan soxla borom xel mu rafet ci expérience Abu Bakrin lay woo xam nga ni yonent bi bu masaan a bëgg loi bu mu tëral pour ñëpp appliquer ko Seydina Omar la koy wax waaye xam nga ni bu soxlawee financement Seydina Ousmane lay woo Abdou Aziz nag dafa am benn branche bu mu féetewoo ci kër Seydil Hadji Malick féetewoo ko ci tariixa bi mooy li ko yàlla defal ci teranga mu delloowaat ko ëtt kër Seydil Hadji Malick delloowaat ko yonent bi ndax guddi gii lu ci waaye def yonent bi nga ko defal xam nga sëñ Touba dafa wax benn bayit daf ni guddi yonent bi même boo amul li Aziz Ndiaye am mais nga am dërëm sëñ Touba cité wul téeméer cité wul ñaar téeméer dërëm la wax dërëm cheikhul xadim nee na dërëm nga participer ko ci guddi yonent bi ne nag amul kuy dox sa digganteeg dem àjjana walaw bi qadri dirhamin la wax doonte le dërëm nga am cheikhul xadim nee na su yàlla nangoo jëf jooju nga dem àjjana kon moom ñaata million la yëkkati def ko ci guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooko kuy lim ñi jëf foog nga boole ko ci mook ñu bare bare bare alors sa temps bariwul macha allah ban mbégte nga am tey en tant que doomu Tivaouane en tant que aussi doom ci xadra bi wala kilifa si xadra bi remise des clés bi nga xamee ni jumaa ji yàlla def na ñu mel ni yéen def ci alal ju bëree bari ba daanaka mbir yi yàmb na ba ñu jébbal caabi bi ki nga xam ne mooy xalifa bi. am mbégte rek li tax ñu am mbégte ñun taalibe cheikh yëpp mooy congaan jumaay Seydil Hadji Malick ji ba fi Seydil Hadji Malick jugee ba léegi ñi ngi bëgg mu mel nii mu mel. Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabbaax da koo tàmbali yàlla mottaliwul yéeneem mm. mu dem barzak bërki Dembo Njaay sëriñ Mansour si borom daara ji def ca la mu man yàlla mottaliwul yéeneem pour mu yegg mu dem barzak sëriñ Abdul Aziz Al Amin noonu yàlla ni ca Seydil Xaaji Malik ba ci seen jamono ci benn xilaafa laay yeggalee jumaa ji mooy xilaafa sëriñ Babacar Sy Mansour kon félicitation sëriñ Babacar Sy Mansour mhm. sagal na maamam Seydil Hadji Malick mhm. sagal na tariixa bi loolu waykat bi naan bu fi yemoon sax mu neex mhm. la alaaji Malick bëggoon <clears throat> Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh bëgg ko sëriñ Mansour si borom daara jeeg sëriñ Cheikh Tidiane ak sëriñ Abdou Aziz Al Amin ñëpp seen bëgg-bëgg la yàlla ni xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour mottalil ñi seen yéene sëñ sëñ Babacar Sy Mansour mettali ko waaye wéetu ci de mbooleem ku xadara bi am jàpp nga ci moo tax sag la ndax congaan yow xam nga ni yàlla amul ci kaw suuf lu ëpp jàkk ak juma wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan kon nag yàlla nañ ko muurloo ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam alors yaa ngi yaa Oustaz xam nga ne nag wax dëgg yàlla léeg-léeg mbir lu rafet rafet dina am ñoo xam ni safaan ba la ñuy maa ngi dégg am ñoo xam ne ñu ngi clash ñi mel ni Aziz naan xëy na yëf yi dafa xaw a niru puukare xëy na yu ñuy waneeg teraanga yi ni ñu koy defee ak traiteur yooyu euh, lan ngay leeral ci loolu yaa Oustaz am na ñoo xam ne vraiment ñoom Euh, beneen gis-gis lañu am quand ci doxalin bi. xaw ma Aziz Ndiaye de mais bu doon man Modou Fall de dama naan maa tey. barki yonent bi am sama xaalis liggéey ko di jënd ay teraanga di ko jox ay jullit ñu koy xéewloo ñoo xam ne fi ma leen fekk ñoom xam nañ ni yàllaa ma yónni ci ñoom. am ñu toog ca àll ba francola yu taal seen climatiseur naan day tiitaru luy réponse bi lu dul maa tey maa tey ba ca digg yax ba. Hmm. bu doon man loolu laa lay tontu mais Aziz nag xaw ma luy réponse am mais bu doon man Modou Fall la yàlla dénk lim dénk Aziz Ndiaye mm. may séddale samay nag di ko def fii di ko def Touba di ko def ci këru diine yëpp mm. am ñu toog ci seen ruq ne damay wanewu damay tiitaru ku ma ko wax man Modou Fall ma ni la maa tey ah. te maa tey bi am na lu ci war a yokk de caméra yee tàkk rek <laughs> très mais mais yow sax mënuma la bañ a laaj mi tey wax dëgg yàlla euh, donte na ñu ngi ci gàmmu sax xam nga ni kër gi ñi fi daje ci ay nit bari nañu mais damay gis de plus en plus approche ak confiance bu am ci sa diggante ak Aziz Ndiaye rawatina ak ki nga xam ne aussi mooy soxna Miss Ndiaye bi nga xamee ni bi nga ko takkalee wujj ñu bari jàppoon nañu ni dina la mere yow sax. <laughs> congaan Abdou Aziz day sama xarit. Uh-huh. te xarit yombul de. billahi allazi la ilaha illa sama xarit. xam nga ànd luy tax mu neex hmm. mooy raayalante gannaaw du am seen diggante Aziz man duma ma ko pardonné lu toll ni pepp suuf hmm. moom duma ma pardonné lu toll ni pepp suuf ba ci estati damay dugal dara cinq minutes mu ne ma dindil li baaxul xam nga man bu ma meree rek damay dugal man ak moom yàlla daf ñu boole ñuy ànd ànd gor ak nawle hmm. Aziz bi nu yàlla di boole bi nu yàlla di boole mhm. booba dara xewul dañoo bokk tariixa bokk sëriñ kër si bokk sëriñ Abdoul Aziz Al Amin nga gis ni ñaar ñii danoo war a ànd mhm. dañu war a war a dañu war a bokk assis bi <laughs> ngi dégg mhm. muy diggante boo xam ni yàllay kese moo ko lal congaan dañuy ànd ànd gor ak nawle di waxante dëgg séq jàmm ma séq koog njabootam maanaam man Modou Fall du ma ruube ci njabootam miis sama xarit la lool Aïcha sama xarit la lool parce que rôle boobu laa war a jouer man ci njabootam xëy na miis laa gën a yàggal moom laa gën a jaxasool mais Aïcha bi mu ñëwee duma ko wan ni ko miise miis du ko yemaleeg yow loolu su ma ko defee duma dimbali borom këram ci fameem damay équilibré di wax lu baax yor sama puso di ñëw ci fameem parce que loolu la ñu war a séq man ak moom xaalis a mujj congaan loo dof dof dof xam ni man oto yu rafet laay dawal loo dof dof dof xam ni kër aw ma ci benn loo dof dof dof xam ni man business class laay tukkee loo dof dof dof dof dof xam ni man damay yendu Paris réeree Belgique loo dof dof dof dof dof xam ni sonn ma man ku may àndal yàlla lay ànd ak yow parce que yonent bi dama man sama bopp parce que damay bañ bàyyi la torox moo tax ma teel a fexe ba gérer sama bopp mm. lu situation bi dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër bu ma yoree compte bi rek kontaan damay xam ne daraa ngi fi luy loolu. macha allah ànd boobu ànd yàlla la. du àndu intere dañuy ànd mag moom te yàlla tax. te bu waroon a jeex ba day jeex. waaye nit dana jaar ak yow foo xam ne doo ah. man lu dul téye ko. wax naa la moo ma wan yonent bi. Mm-hmm. moo ma njëkk a wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. booba demaguma ci yonent bi di ko waxtaane sopp ko. Mm-hmm. mu jël ma man yóbbu ma ci yonent bi li ko gën a neex ci man nag mooy duma wax soxla man duma ñaan kenn congaan ilaa yow mi diin may ma du am su ma ko doon ñaan ñim nekkal dinañ xam ne man dama koy ñaan mais man du ma ñaan kenn àndu yàlla la ñuy ànd yàlla boole nu muy sama xarit ma jàpp ko te yàlla tax luy teraanga nag defal na ma ko waaw lépp luy teraanga defal na ma ko ba bërki démb daaw dañoo gàmm ba pare may ñibbi mu ne ma sa nag da ngaa teel a ñibbi torop ma ne ko Aziz man damay ñibbi mu ne ma man am naa lu ma la bëggoon a wax sax ma ne ko lan la mu ne ma terrain bi ci sama ginnaaw dañ koy jaay quinze millions lay jar ma ne ko waaw mu ne ma bàyyil ma jëndal la ko nga tabax ko mu jënd terrain bi man ma tabax ko man ci sama xaalisu bopp ba terrain bi yegg loolu loolu sag la te sëñ Mansour nee na ku ñu defal teraanga de ko wax ndax yàlla joxul kenn mais amee macha allah alors fi may jeexalee nag lan ngay dénk xale yi nga xam ne ñoo mujjee ñëw Aïcha ak ki nga xamee ni mooy soxna ak mooy soxna Betty di soxna ki nga xam ne mooy Baye Ndiaye xam naa foofu laa jeexalee fan la ñaari soxna yu ndaw yi lan nga leen di dénk ñi ñi mujjee ñëw ñi mujjee ñëw góorgóorlu rek sëy ku mel ne Aziz ak Baye yombul góorgóorlu rek <laughs> ah xool ñi leen jiitu hmm. ñu topp ci ñoom. parce que mënoo mujjee ñëw jiite soo ñëwee da ngay fekk ñi la da ngay fekk si ñi la fi jiitu. nga roy ci ñoom topp leen am ak ñoom jàmm. bañ a xajal benn seytaane ci seen diggante muy yàq seen diggante loolu kese la bañ a déglu kenn rek téye sa borom kër mm. te am ak ñëpp jàmm boo ko defee rek lépp rafet diine lislaam di ko puukarewoo bu baax a baax wax dëgg yàlla ndonga daar yi aussi di ko sago Oustaz Modou Fall di jàngalekat boo xam ne wax dëgg yàlla dégg jamonoom tax na képp koo xam ne rek dégg nga alquran da ngay am fierté ci di ko dégg muy wax ma doon amati mbégte benn yoon ci jotaay bi yaa Oustaz di la gërëmati rek merci beaucoup jërëjëf Fall merci beaucoup mbokk naaru góor yegg si na kii gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye boroom naaru góor grand marabout di boroom baatin borom xam-xam ak boroom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bi ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor boroom xalwa boroom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19